on a, mettons, 30-35 minutes hein, euh, euh, pour euh, euh justement euh, euh, tasser affaire donc ñu commençons ci question diverses Hein, question mhm. diverses yi moom mënuñoo génn mhm. Pastef ñun wax nañ ko fii yàgg nañ yàgg nañ ko fi wax mhm. yow wax nga wax nga wax nga bu yàgg ne Pastef a na bëgguñu mais ils ont am euh, plan B am nañ euh, te euh, defe parrainage yi milliards d'informations information majeure ci euh, au second plan Ce n'était pas une surprise je que Sonko joxuñu ko fiche de parrainage comme il fallait s'y attendre et comme eux-mêmes ici sont attendus le mandataire qui a fait il il a pris le moyen euh, de se faire accompagner par un, huissier de justice, donc mhm. pour constater effectivement le refus euh, euh, de la remise de, cette fiche mhm. de, parrainage qui, quand même, est le, la première étape de, du processus électoral pour tout candidat. Donc, bon vous moi vous wax une information secondaire mais information capitale oui- moi quand même qui Pastef plusieurs. candidat mm-hmm. euh, ñoo fa ñoo fa jógee ñun ñu ngi doon xaar benn waaye ñoom multiple donc y au moins cinq cinq yi euh, muy biram Souley muy Bassirou Diomaye Faye muy euh, gimari Marius Sagna muy El Malick muy Abass Fall donc grand ñaari ñaari actualité yooyu laa bëgg déjà tegale ko ci table bi nga faram fàcceel ñu ko waaw jërëjëf soxna Aïssatou ñu remercier waat euh, monsieur Moundiaye Cissé ci éclairage yi parce que dafa am euh, corrélation sax ak li ñuy wax waaw dëgg la waaw crise parti politique yi de manière générale crise u démocratie surtout ay blocage yoo xam ne dañuy nekk ci benn genre je ne dirais pas voie de garage mais en tout cas impasse moom parfois lu ko niru dafay am bon pour ce qui concerne Pastef moom am na ci premier plan bi moom fu ñuy mën a yem ñun parce

ñeeneen ñeneen ñu nu mu tuddati waa camp Sonko tam seeni avocat am na yeneen argument comme amagul une décision définitive ñun lu ñu mun lu dul nekk dans une expectative prudente en attendant ñu xam euh, la moo ciy dëgg pour être maanu quoi tam waaw pour mm-hmm. adopter une posture de de neutralité axiologique parce que moo nañ ci jël faran mm-hmm. ne nii la waroon demee carrément rejet bi baax na mm-hmm. wala ñu kii quoi jël le compte pile ne reçu bi baaxul kon li ñenn ñi di def. Mhm. mais comme querelle la buñu ñu épuisé gul. Mhm. et que ay ala kulli al querelle bi mom mënuñ té mu am. Mhm. nañu baye querelle intellectuel bobu continuer. ba ñu xam véritablement de quoi ça retourne je crois que état de droit la ñu nekk. y a des moyens de recours. quand une décision de justice ne vous arrange pas. et je crois que Sonko tam explorer na voie de recours yoy du doon. wala au niveau national comme moom international. et je crois que ki ñu ay céréales ak yoy nañu xaar et même bu dul il y' a des cours qui sont C'est nii. c'est est après li ciy am yëpp. mais dina ko xam. Mhm. entrer en corrélation ak sujet nga plan B yi. Mhm. nga mhm. le passé tient plusieurs discours. Il y a beaucoup de notes discordantes par rapport au format de candidature. Avant, nous, il excluait toute hypothèse ou perspective de plan B. Donc, c'est le porte-parole. Voilà. Sonko lui-même, c'est ce qu'il a léegi tey yaa ngi ne ma cinq mhm. kon donc am na plan A B C D E F mhm. <laughs> waaw wala waaw dëgg la boo matul ñu épuisé sax mhm. alphabet bi yëpp te plan yi du jeex waaw te plan yi du jeex du titre bi nag waa un e, une sorte un gros plan parce que benn gros plan la boo xam ne avec grand P bu am ah. ay sous plan yu bëri ci biir <laughs> du noonu boo léegi nag euh, bon moi je ne pas véritablement à quoi il joue <laughs> waaw à Kwazu Pastef à Kwazu Pastef bay teg euh, schéma yi nga xam ne dafa xaw a compliqué et complexe mhm. waaw parce que pour man de le départ ku xool nag mbir yi quoi parce que bu affaire querelle juridique yi féetee ne ba pare mhm. dafa am lu bizarre ñun ci kuy jàngat politique mhm. démarche Ousmane Sonko il prête le flanc comment ça ñu bëri ragal wax loolu mais depuis l'affaire des 94 milliards waa ji dafa am benn facilité boo xam ne mën accuser nit donc il se met hors du champ de la loi oui ci affaire quatre vingt milliards il a parlé de 46 milliards boo xam libéré nañ ko alors que musul am ñu ñëpp on a été là gis contrefeu yi ñu ciy teg yëpp jour bi nga xam ne dañ ko ciy xaar muy leeral mu andi benn contrefeu ànd ak soxnaam yëkkati loxoom naan ay mu transposer débat bi ci affaire sama soxna ne nañ ibaadulaak yooyu yooyu yëpp affaire diversion la woon boobu parce que xas xas na boo wax loo xam ne rëcc na. Mm. waxuma Mamour Diallo deful. Mm. waxuma loolu ba tey de mosuma mosuñu défendre Mamour Diallo. Ah. et que affaire boobu dañ ko war a leeral. Mm. parce que il s'agit de nos deniers publics. et que fii Sénégal sàccum suuf si dafa tar. depuis tout le temps dañ koy wax et on le dénonce. te ba tey tey la wàllu gën a ay jàpp suufu Sénégal di ko salfaañe. aux impôts et domaines ak fépp partout. Mm-hmm. loolu waxuñu loolu de. Mm-hmm. ñun ki woo ci ab cet wax Sonko moom moo andi benn boo xam ne bii nii pour assainir la. waaw léegi nag ci 94 milliards boo xoolee démarche bi mhm. mais les interconnexions entre Atlas Atlas ak Mercari société yooyu noonu mhm. ak 12 pour cent yi ñu naan xaw ma pour cent yoo xam ne waroon nañu ko jël mhm. Sonko dem bay waxaale ay lébu ñu koy enregistré ak yooyu mais loolu lépp dafa louche bi ñu waxee loolu lépp nag la wax affaire 46 milliards mais tey xam nga tey moo na jël Mamour Diallo def ko nagu sarax parce que man bi élection wàccee Mamour Diallo man loolu laa tegoon koy wàccee ba pare pour que pour kii ko. pour ubbi enquête bu ko defee ñoom même bu ñuy sacrifier Mamour Diallo ñu am Sonko pour diffamation. wala waaw mais ils l'ont pas fait. wala mm-hmm. Ablaye Wade. Mm-hmm. gars yi bëri dañuy fàtte fii wax na ko ci biir campagne bi. Mm-hmm. nee na Sonko bu Macky Sall bu gagné. dañuy yóbbu ci yoon ci affaire 94 milliards yi wax na ko. ci benn vidéo te noonu la demee quand même. mu ne kaay ñu ànd xam nga ñu ànd boycotté ndoo wala. donc xam nga actualité bi fi amoon la. mu doxalee noonu. ñu di ko xoolaat tamit. léegi bu coow loolu di jeex ak. la affaire Adji Sarr bi am soxna si. la question qui fâche toujours foofu tam ku sax ku xool rek xam ne lii ni viol bi pour mu dugg suñu xel dafay jafe loolu ñu gëm ne fii viol am na fi gëmuñ ne viol am na fi man gëwuma ko bokk gëwuma ne sax Sonko yoon ay arme di menacé gëwuma ko donte fekkewu ma donte boo nee taskatu xibaar waroo wax gëwuma parce que c'est du affaire <laughs> waaw ay gëm naak ak gëwuma quoi waroo nekk ci émotion wala ci ay sentiment mais wax dëgg yàlla nag thèse bi Sonko joxe tam affaire massage simple boobu noonu mais thèse boobu day jafe xel mënut a sa ça échappe à l'entendement loolu xel. mënu ko jàpp. wala mhm. à partir de ce moment nag. Mhm. ñun lu ñu jurisprudence politique wan. Mhm. yu mel noonu nag boo ci defee erreur. da ngay teel a sa bopp écarter ménager sa bopp. parce que boobu la ñu waroon xalaat affaire plan B. parce dañoo mësul def le procès de Sonko ñoom ci affaire bi. pour man Sonko balaa mu jëm tribunal le premier premier premier tribunal. pour Sonko dafay être celui de Pastef. ne def yow après ñu atte ko bu fekkee tey nag xam nañ ne Sonko mënul continuer fii nii après ñoom ñu commencé explorer plan B parce que Pastef ay nit ñu baax ñoo fa nekk. Mhm. ay sénégalais yoo xam ne kenn ëpp leen diplôme ñoo fa nekk. Mhm. kenn ëppale wu leen ci réew mi ñoom ñoo fa nekk. Mhm. yaakaar lañu amoon ci Ousmane Sonko jiital ko. mais projet bi mën na ko corseté ci Ousmane Sonko kese. waroon na mën a am plan B foofu la amee njëriñ jamono yooyu. woo sénégalais yi dañoo leen un langage de vérité kii te et puis effectivement suñu deniers publics yi war nañ jël xaalis boobu jox ko xale yi ñu am liggéey et cetera et cetera maam repositionné projet bi ci discours original bi mais nag nga wut benn profil mu porté ko mhm. Mhm. ñoom loolu lañu deful nag à partir de ce moment nag tout est politique mhm. moo tax man du ma dugg ci affaire droit loi bi jaar na parfois le droit il est maladroit le droit il est élastique on peut le tirer dans tous les sens dans le sens surtout de nos intérêts fii loolu rek moo fi am Sénégal ci këral juridique yi nii ba ci yenn chroniqueur yi wax ku nekk da ngay waxee rek fi mu la arrangé li ñu xam daal mooy tribunal mooy atte et que tribunal dafa prévoir ay degré de réduction yu bëree bëri bëri bëri bëri mhm. bu ñu la daanee fii nga demaat demaat li ñu ay ba ci yeneen daal ba ci mhm. au plan international du noonu léegi nag fii xeex boobu lañ ko kii mais li ñu mën a jàpp nag politiquement mhm. mooy une volonté chez monsieur Sonko de ne pas répondre à la justice parce que moom moo ko théorisé wóolu ma justice donc tey dañuy wax ñoom affaire loi ak yooyu mais discours original bi mooy

do bëri na parti yëpp fii nii xam nga tam loolu lu ne fànk kenn du jeex mm. boo xoolee rek euh, ñu bëri soxna Aïssatou xam nga ne li ñu ànd ak Sonko leen intéressé mooy am post député